Euh, jàng yomb na xam-xam am ko yomb na waaye dafa am lu ëpp solo loolu mooy ab yar euh, xam-xam lu mu bari bari bari te borom boolewu kookub yar xam-xam ba da koy da koy alak safara la jëm ak moom moo tax banu Israil li ñuy bari bari xam-xam ba ñu ñàkkee jëfe seen xam-xam yàlla nee na ak seen xam-xam boobu dañoo mel ni ay mbaam yu sëf ay téere kon nag am xam-xam ba noppi te amoo ab yar amul benn njariñ Pape nag loolu la jëmbat fii ci xale yi mooy am xam-xam ba noppi boole kookub yar te loolu moo tumuranke